ne kii dina ñëw ah loolu de biti la fanaan <laughs> man gëw ma loolu man balaa ma koo gëm gis ko kon xarit tax ba taw ma xamatoo sama jikko de dalaa réer kii de mu ngi nii di ñëw may seen <laughs> gëw ma loolu na fi mbay mi ma xam <laughs> am fitam caprice am capable na criminel la du ko bàyyi mu ñëw jàmm. bu ma defee ñaari fan ñaari fan rek dinaa ñëw xam nga comme kale la da ngay sol solu kale. Mm. sol blouson. Mm. ak yére yi ak yooyu noonu daal. ana ana naam ko maa ngi sëyi. yaa ngi. maa ngi dem sëyi. am nañ fay bokk damay dem si kër Anita sama ñaareel bi tey foofu laay fanaan. ak an sa njoor. ah an sax njoor njoor ah. maa njoor sama bopp maanaam mu ne ah. maanaam mu ne sa bàjjan ñëw sa hmm? bàjjan ñëw waajal la say xarit ñëw loolu la wax anam ah. man maa waajal sama bopp ba sama bàjjan gaañu na mu ma waajale <laughs> waaye nga wut sax ñu la muur boog he soxlawu ma loolu man kay damay dem tey soxlawu ma loolu kam kooku kale la motax ma sol solu kale. mooy di la romb ko ay beutam di metti yi couleur yu xol han ah? ah? han yaay na xamoo sañse lii couleur universel la. voilà yow xamuloo lol <laughs> universel la ya ah? universel la. xool mi dëgg la universelle la xamuloo loolu lol motax len nag laa len di wax bu ne nga ca. mooy nag bu mu xese ba dem jaxasu bëgg sey sëy la. bu mu xese ba dem ba ag lu ngeen manqué soxlawul ngeen may waye na fa Mbaye dafa nax bopam dafa ma sëriñ sëy du loolu nga wax. waaw la ci ko di. waaw dinaa ko ne gàllaaj sëyul dinaa ko ne sëriñ sëyul xam nga luy sëy danaa xat jëkkëram ping pong ko nu ma <laughs> ko si samay feb nak. wuyu ma loolu moom ko defee sama xol bi dina jaay glace parce que moom dafa foog ne sëriñ mooy téye jëkkëram te ñëpp ko jëppi ndax ni muy def jëkkëram ji na man mi tok safuma ndax dafa sof ba pare rew sedd la sa xol bi foog ne sëriñ mooy sëy sëy sëriñ sëyul de hmm. coow li jeex na de matt bi tas na kon baax na bàyyi naa ko sa loxo ndax jënd naa arbit yi ngeen muñ ñaari fan ñaari guddi yomb na muñ dégg ay woote téléphone parce que damay fay comme damay seet damay seet duma bugg dérangement waaye yow ami amaar dégg nga dégg ani ndeewoo faal dégg nga eh, ndaama maa ngi ñëw may liggéey si bu noir bi moom laa lay may baa bi nga xam day génnee ans mu ne faaj chemise di fularet e maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñu seeti sama xarit bu saf bu jantal bi waaye yow man la moo tax mam natt sama yaay xale bee jantal ceene na dënn bi na wuy sam man waaye maa yëkkati kooku yàq sa jongo ma lan la. waaye la ma tax aw ma sens waroon na ma am jëkkër ju ceene ne nii. jongo ma kër kër jongo ma kër kër kër jongo ma kër kër bu ñu ñàkkee fayda famille bu ñàkk a fayda bu fekkee li ma nekk bur géwél di ma bañu géwél jéy bañu géwél yi ñu ñàkkee fayda suñu famille amag muuragun ci góor muy sëy eh yow nag suñu famille góor nekkal góor nekkal góor loolu daal boo ko defee moom dinaa bég ci yow moom jëndal frigo kon jeex na te xam ne di nga naan ndox mu sedd wóolu naa la ci nag nañu woote sawar ndax dina ñëw te yàkkamtiwuma mas dara bi bo mu nekk tey suba wala gina suba wala mala leer ba leer ma moy hmm. nga li muy def ba dug sama keur gi du ñaari fan la fa raay eh? ya. mais na ko te un mois jëm deux un mois <laughs> lol balaa mako koo gëm jànk xoolal ma ñew fi di gis diko gis chaque jour bala mako ko un mois bala mako koo mu ñaan dimbal kon baxna man da lol boko defé defee ma ba tay de sama xol bi dina sedd <laughs> ndax na mbay moom man dama koo jéppi neexu ma defal ma loolu. man maay gérer kaaw na mbay boobu. baax na gérer ko. waaw baax na xam naa ne mar nga nañ naan lu sedd ràcc ci waxtaan na woon fa woon. gis nga góor. waaw da ngay góore. Ah. góor waruloo jigéen ne. Eh. Eh. yow nag da ngaa nekk góor. Eh, si si si. may ñu may ñu may ñu may ñu. sa biir yaram. may ma may ma féminin nga. Ah, ñun suñu famille may ma noppi suñu famille góor sa yeegu ci. déedéet suñu famille. góor sa yéen. amu ci amu ci amu ci amu ci yow sa weer gumbu yi. man maa ngi yow sa weer gumbu yi. wax naa la ko nag. bul door bul saaga jéegu bol lañ leen di. bul door bul eh, saaga eh, jéegu bol lañ leen di. mooy saaga ndey. damay saaga ndey. damay saaga ndey. damay saaga ndey. damay saaga ndey. ñappa lay def. da ngaa neex da ngaa neex. doo fi laal benn. yéen. yaay toogal fi nga toog yéen du ngeen baju géwél yéen. <laughs> billaay parce que géwél dég yow ñaata drapeau nga boole day kool lu yàq. mu defar ko. xale ba di ko tiital bu ngeen jógee di wax. Eh, ñun bajo géwél bajo géwél lañu. géwél eh, bajo géwél. eh seen kool yaa ngi bon. waa ñu kool yaa ngi jeex de. eh seen kool yaa ngi bon de. Eh, seen kool yaa ngi jeex de. seen kol yi li koy jeexal yéen a ko kap seen kol kol yi ñu ngi jeeg de eh aw sa yeke sa na ko jotu ko eh jam ko me dara ko drapeau Gambie Gambie Gambie ay la gara wa mooy jeeg de woy kol yi mooy jeeg de jëleen boobu jëleen boobu du ngeen di ngeen ma bëgg gis ñaari fan yi fekk alhamdulilah ça mu yaa ngi ci jàmm bu baax xam nga rek bagage parkar ko dañ ko dugal loolu moo tax si si yow xam nga ci ko bagage bi ñëw yow daal njëkk a woo balaa may ak kenn léegi yow bu bagage ñëwee naa la woo des yi xam naa ci biir semaine bi rek incha allah ok merci allez voir fi ñu la fekk waxee xaalis ay saw yaay yaa mën commerce waaye yow Bousso yow lan moo tax yow amoo yar ci man mi la jur ay yaay laa def man daal gone bi Sénégal jaaxal nañ ma yow nan ngay fekkee ñàkk savoir-vivre may wuy téléphone nga romb ciki-ciki jël sa siège ñëw teg sama ah, daal damaa ba toll ak a tax respecté woo la <laughs> damb daal maa ngi jéggalu rek maa ngi jéggalu rek kay moom ça ñu luy triste ni ak fofu nga tok non pour lan la. ñu nga tok fi demay soog ñew ñëw moo tax moo tax ma tok ni fi nek tok fi doxam kat bay ñew di tok fofu melni ni ko da nga fatte ni yaay borom kër gi legi nga tok ni ke am naa léegi sama jabar nga legi kay tok ni ma ñew kay tok ni sama wet. Wah, urus tutu direk umur. Mau ngetom nih. Hmm? Kayak tuh misalnya. Pengunyo. Nyol nih. Si. Si. Ah. Ngono mga masih bayi fede. Nyol nih? Tog na. Oh, ni sama bet. Hmm? Kaini pusi. Tegesimo. Eh. jëkk si ma Ndiaye bul wax loolu yow tamit nag ah damaa bëggoon rek ñu waxtaan lan nga may doyati waaw ah, wuyu ma yaay daal dafa am sama xel mi dem démb sa xel bi dem ñu waxtaan ci sa xel bi dem <laughs> affaire tonton Mbaye la rek Bousso respecteel seen jaay yow dangaa yem Mbaye de wuyu ma waxuma loolu bàyyil fii rek yow kay man dinaa la dégg dinaa la dégg de soo waxee soo waxee damay dégg si ni kaay ni sama wet ñamal nga toog nii sama tànk yi daa tilim de am problème dara pour yow la yaa ya, tax ma lal nga préféré distance bi. ah déet distance bi nga préparé. wallaay toog naa billaay. kon poussé. Hmm? poussé fi. mu poussé lu waat. ñëwal nga jege ma. ñëw naa ñëw naa nag. ani Anita ma dimbali la tuuti ñëw naa ñëw naa nag ñëw naa ñëw naa de wallaay gëmuma ko sax man musuma woon gëm yàlla dina nag dogal moo tax c'est comme ça waaw tarda moo tarda rafet na rafet na tudd naa la ko tudd naa la ko merci léegi yow depuis trois jours fan nga nekkoon ne man dinaa ñëw dinaa ñëw dinaa ñëw voilà mbaay expliqué na la mbaay expliqué na la wala expliqué wu la man dama sëy mbaay déedéet doomu haram bi ana mbay xam nga la laa bëgg tonton Mbaye daal laa bëgg ñu woo ko waxtaan ak moom ndax nag man daal xaw ma la dama ko yéene yaa aara daal mu takk ko <laughs> ndaw kër bu neex kon yaay na fi mbay waaw <laughs> ah, yow de xam nga ni sa nijaay ak ana mbay duñu laalante fen fen hmm. lool nag laa ci sa bakkan xaj na ci de xam nga loolu. yow bàyyi ma loolu nag laa ci xam nag te xam naa ne ñoom ñaar buñ bokkee kër kër ga day neex man ambiance daal lay doon sama nijaay rek. Hmm. ak yaa aan. gis nga buso sa nijaay mënoo koo maame du sa maam de sa nijaay la dafa bëgg yëfi paa rek mais sa nijaay la bàyyil di ko maame. xam nga li ngay wax ni boo ko ko waxee tey di ngeen jow ci kër gi te sama yoon newu ci bu lay duma fi laay toog. dama ni yow daal yaay bu ma yàqal xam nga lu tax ma wax la ko. day ñëw ma wax ko ko mu nar a nangu nga wax sa yàqal ma yow xoolal bu la neexee bul wax xamala laa bëgg bis bu ma amee occasion bañ toog ak moom hmm. ba ma wax ba pare yow appuyer rek man samay new wuy ma rek naan ko xoolal loolu moom idée bu baax la xam day nangu ma loolu rek si yow sama yoon newu ci sa diggante sa nijaay def la lu la saf ak moom man sama yoon newu ci. waaw mais bu ma yàqal loo def baax na pour yow xam nga yow respecté woo ko yow te moom moom moom moo def ba yow respecté woo ko yow la neex ngay def mbaay waaye dama xajoo suñu diggante te yaay nag naa ma ndox man mën mm-hmm. naa yaay temps yi nag yaa ngi xale xale lu nii ngay def bu ma génnee ñu foog ma bébé trois ans xawal mag mag lu sax nag ñu foog ne mag laa tuuti ma màgg nag yow <laughs> waa sama yaay na. ah loo mën dil may ma tuuti rek ma ñëw oui. ah andi loo ma xaalis. Ah, mel ni ma toogee baax na de. ndokk yàlla fi nga toog a baax. sama bopp bi ma firi. Hmm. laa bëgg nga defal ma ko six renversé ma mën ci këpp sama péri gi. Nafi la mooy Nafi damay wér de. ah pour man xaalis ma li nga andi ëpp xaalis kay damay wér de. def ma kaaman. Ana Mbaye nga mën a létt ba at mi di ko waxtaane waaye tiim ma man Nafi mbay létt ma. ak doom aloe vera bi nga yamale. du de sama cat ni ñoy metti ñoy bui, buy fi mu toll sama yaay lan la wala yow li nga amul karaw comme sama papa mo la naqari man sama papa la doon karaw. doon ma la ci waxante fi mu toll ni bu ma la léttoon ni legi ba pare yok loxoy metti lay def. nga dugg ci sa bir firi bam yegg. ah bu baaxul duma ko dem ca salon ba. salon nga xam dem ci rek. wa baax dem salon baye mo gën nak demal ca Mbaye ak mu létt la su ma duggoon yow suma ma nak yow bo pare fi ngay dugg dindi jiko kon baax na. Ah, man xam naa lépp waaw waxuma loolu ànd sa nit ki woo ko. ay nafi moo wax nafi na jël sama téléphone kidnappé ko man bugguma ñëw foofu fii te indiloowuma sama téléphone mu téye téléphone bi su ma ko waxee jox ma sama dama xeex ñoom dama xeex ñoom tëggal leen raas saaga leen ñu wax man leen man bi mu ñëwee Dakar Colobane laa wàcc jaay naa jorox jaay naa jaay naa yëfu band yëpp tiital leen ñu tiit ma ne leen kale bi ma dee mooy tax duma dem ci kër kale bi mu leen ma teree ay keek keek ñu sës ñu ndes ñoom ñoom ñoom mujj ndes ma jël sama bagage gisoo defuma leeraas yow yoonu rëcc rek laa kii rek naa def ba ñëw rek ay ni nga def sakor nga de <laughs> takkar nga de. <laughs> yow pour yow sa jabar jooju nga am jar naa toog foofu rey sa bopp ak xuloo ko xeex pour ñëw. kooku day jabar ñooñu lañu seen famille bi. yaayam bandi la lu ñu sëyal moom bandee ku njëkk takk balaa ma koy takk am nañu seen kër mbuur foofu noonu seen famille yëpp famille bandi la. loolu da neex nga taamu vulgarité. Hmm? kon loolu nga taamu loolu nga préféré. déedéet neexuma. yalla xam na ni neexu ma nattu si man mu ne jabar yo xamne jabar nak la xam nga. doko nit kan sa sa kan? jëkkër yor. <sighs> alhamdulilah rabbil alamin yaay bu woy yor la la koy doy ah nga wo ko. yëkkati sa téléphone woo ko woowoo ko sax ngir moom wo ko ngir dara waye sa terrain ngay ngay ngay ki ngay lii ci moom ba ku fa nekk xam ne moom. kuy tërëmpere. lenn de lay wax moom lu bëgg xamal hmm. ma la leer na amul woon jabar mosoo nekk monsieur. donc hmm. yaa ngi door am jabar yaa ngi door a marié maay pour sa kooku noonu. Hmm. amatu <laughs> jabar amatu fi place de xam nga loolu. ñiriwoo ko sax ñiriwoo ko sax. et puis lan moo tax bi ngay ñëw ne rich, maa ngi ñëw. dama rëcc dama rëcc moo tax dama rëcc rek man foog ma ñëw nga gis ma ma gis la ma fanaan ñaari fan dellu ñu soog ma gis. dellu waaw. Ah. Hmm? yoon sooy ñëw. dem hmm. may wax ne ma ngi hmm. wax ma heure bi ngay jëkkër dañ koy waajal. xam nga waroon nga fekk sama di tak waron nga fek fune di brié légui fi né moo takul takul da fi fii waron na fi la lu taw hmm ak la. waron nga ñëw di jéggat di choisir di laajte lii lan la. bilaay sama yaram ba nga neex wallahi kan mooy trempere. Eh? booy defar lu dantité du <laughs> dangay teg sa loxo. waaw damay kañ ngay bàyyi français nga noppal sax dina. wuyu ma fii trempere mooy lan. bete salsa. woowoo ko pour pour ndax mi ngi lekk woowoo ko ndax mi ngi naan woowoo ko ngir dara waaye danga koy woo ka fa nekk xam ne yow jabar nga muy jabar xam nga li ma lay wax. sama yaay non seulement bu fekkul woon yoro bi muy dem. lim leen wax ne bu leen ko woo di ko déranger. mu dem xaabaabal man du man Nafi mbay maa yëkkati sama téléphone di ko woo mu jàpp ne dama koo namm wala jabaram di jàpp ne xam nga woon mën naa koo mën naa koo dem fekk ji sax ba fa mu nekk waaye jaraluma ko.

saabu rek laa diw samay yaram këppoo ñëw. lu ma gëj dégg. Hmm? yéegaayu. waaw. jugal nga sangu ci. billaay sangu na. waxuma la sangu yooyu de. Hmm. man kañ laa gëj a dégg boobu façon sangu. li moo tax ma xam ne dundoo. li moo tax ma ne la sëyoo amoo jabar. léegi damay dem sanguwaat si kii. non man maa la yóbbu sang la. maa loolu rus naa ko. maa ko gën a mën wala ma dem fa ba jabaram jooju xam jik pir pire la fi bàyyi waaye nag yoroo moo ma jaratul di manquer sama bopp di pertal sama bopp di don pepet, di don manquant kunkan di tak kankuran. du ma ko def. maa ngi toog sama kër gi yaa ngay may kële ndam dang woo ko. yow sama yaay nag lii ma def mooy dignité. yow kañ ngay mën wujje ci ragal bay jërëjëf. sa terampere ngay ngay rampe foofa. yaay est-ce ko defee kooku xam ne yow mi moom yow jabar nga comme. waaw léegi déglu ma est-ce mun ngaa bàyyi français yi. waaw ba tey mën naa ko bàyyi waaye xoolal. terampere mbete salsa. xoolal yow defar rek ba mu xam ne yow jabar nga muy jabar. ragal sama yaay ni comprendre de. sama téléphone bi maa ci dul ci di composé allo yoro mu naan allo Nafi Mbaye. xaw ma kañ ngay mën a wujjee. maa bañ <laughs> man loolu kenn mu man maa sang sama bopp de. Mm. Eh. Eh, yooyu kenn baaxul man ma kii man ma simeekul nga di ma sàng yooyu dama ne kañ dem laa dugg ci douche bi nga dugg ci bañuwaar bi préparé naa ko eh, amitaan loolu moom rus naa ko moom hmm. loolu moom wax dëgg yàlla rus naa ko et puis watuwuma tamit foofu bu ma watu woon sax dinaa mën kii waaye yow tamit plus na lol de aminta deug yalla man ni mo melni sama yaay moo ma muus sang sama yaay depuis sama yaay ken sanguluma ndol njool cekkite damaa bëgg simé ko la la simé ko gis nga lé billahi rus dimu dama bayyi bu guddé go ma ca sa yaram bi ba mu bëriyee lé pour yow la tam bëgg wala xam nga lu ne de bàyyi ma sang jugal bala mala simé wa waaye lay expliquer suma sango ba paré guddi bu ñu fayee làmp bi ma simmeeku ko parce que damay rus simee sa kanam. simmi la jot na la. ma hmm? ne la force la jot na. pour ma simee ko. waaw wala da ngaa ma njëkk laa simee hmm? ñun ñaar ñooy sang. ndekete njool jugal ndekki jugal jugal ndekki jugal waaw ban heure moo jot ñu ngi naan jugal nga ndekki na ndekki du yëg sax heure buy dem da ngay mel comme kale urban leen mi di jëf di leen jot pour man huit heures la. xanaa mbàjj bi moo tax doo yëg heure bi. lii nag. ndékki ñëw. Mhm. xaar ma sangu ñëwaat kon. sangu. waaw. ci fajar bi waaw. léegi nag duma ma gàllax ndiku soog a ndékki ndékki yi. gàllax ndiku nga sangu ba sangu ba baax ñëw tëdd loolu si gàllax ndiku uti. léegi dangay nga yeewu rek nga lekk. Eh, li petit des oli la. petit. des oli. ah ci kaw lal bi laa koy lekkee. mu ci. ñoo xamoo ni. man mburu da ngay sangu ñëw xëppoo ndox ñëw jox la mburu ak dute wala mburu ak café nga def ci boor nga lekk kay waaye lekk si kaw eh, bi mburu amu fi ak di ñu la jox ay café xaw lan yow ya li moo tax ma ne amu woon jabar buso Bali, Bali buso oui ma jëlal capteur bi nga tàngalal ma kafe gu gaaw bu for nag bu suukar si bari nag dégg nga. waaw doo bàyyi ma tegal la rek. waaye yow man xam nga du man amateur bu man sucré la defal ma kafe bul ci sax def suukar ah non sucré la yow. waaw d'accord naa waaye dafa am lu ma bëggoon ñu waxtaanee ba pare boo paree ma tegal la kafe amul benn problème. Bousso doon de. bon ma neex lu neex neex laa lay doyee. Bousso da nga maa yàq. Eh. yaa ma bul waaye tamit tons nag bàyyi bëri. xam nga yaa ngi may déranger yaa ngi may déranger sa lakkale gaa ngi nekk sa sa allah rek ko génnee loo may doyee. lu neex jàmmala ak salaam xaaral may ma tudd yaay booy. ah. yaay. ah. Bousso. Bousso loo ma war a doyee. gis nga ko nag. mi ngi ma daf maa yab nag. man lu muy woo dala. li ma avancé naan ma dama laa soxla ak ni ngay waanee loo may soxla. man kër gi lu tax aw fu jaam man sama tons dama ko jël def ko sama xarit mais moom xamul loolu. moo dëgg ma danga may kookali rek danga may kookali rek.